dama ñëw Touba xam ngeen ne eh, sëriñ bi eh, dafa am dëj te sëriñ bi bu amee dëj Sénégal yëpp am dëj kon nag rafet na eh, bu fi mel ni amee ñu bàyyi lépp lu ñu doon def ñëw jaale si ko jaale ko njabootam jaale ko waa Touba yëpp jaale ko waa Sénégal yëpp jaale ko mbokku taalibe yëpp ba pare nag setti suma sëriñ sëñ Sidi Abdoul bi nga xam ne nii dama fasante ak moom kóllëre gu mat sëkk sàkku si moom ñaan ci lii ma mbébét jëmale ko ci réew mi maa ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm Sénégal nawet bi ñu dëgmal mu nekk nawetu jàmm doonte sax bëri na ay tolof ndaxte bu ñu duggee ba eh, gis nañ ne mbedd yëpp am ndox te loolu parce que Touba quand dafa nekk dëkk bu am solo ci réew mi am dëkk bu am solo ci Afrique. nekk dëkk bu am solo ci àdduna bi ndax mooy dëkku sëñ tubaa kon nag li ñu gis ci mbedd Touba yi neexuñu waaye bokk na ci li nga xam ne nii dañu yaakaar ne fii ak ab diir bu neexee yàlla dootu tubaa Touba. Eh, démocratie ak liberté moom ci am réew bu fa amul rek dara amu fa waaye ni ma ko wax ci njëlbeen gi rek da ngeen may may rek ba ma dellu dakaar ba jóge ci dëj bi incha allah dinaa jàkkaarloog askanu Sénégal ndaxte nag ci loolu am naa lu bëree bëri lu ma ci war a wax ndaxte nag. li nga xam ne moo am barki démb jaaduwul